jërë ngeen jëf mbokk yi nuy seetaan ci Touba Argentine TV ñu ngi leen di wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ci kàddu gi kenn jàkkaar lool di seen mbokk Aroona Cissé ci wàllum caméra bi kenn ñu ci féetal mooy Alaaji Gora Seck ñoo ngi fii nga xam ne moo di Daarul Karim ci ëttub sëriñ moo Modou Faty Khary Mbacké ibnu sëriñ sàmba Mbacké nga xam ne saa bu waxee guddi gu tedd gii di laylatul xadar xel yëpp dem ci jàmbaar joojule di sëriñ Modou Faty Khary Mbacké la menn mag mu baax doon wax nag di Alaaji Taala Siise moom cana ba day wax ne doomu aadama bi su dëddoo euh, wane ginnaaw muy bàyyi koo fi ba fi lu baax baax na lool waaye ba fi ñu baax a ko gën ndax soo fi bawee lu baax te boo fi ñu baax lu baax loo fi bàyyi woon yàq ko macha allah nag sëriñ du faati Khary Mbacké demee bàyyi fi lu baax jëmbat ko waaye bàyyi fi ñu baax ñoo xam ne njëmbat loole bàyyi na fi ñu koy suuxat muy njaboot gu tedd goo xam ne saa su nekk bu bisu laylatul xadar gi ñëwee guddi gi ñi di ko màggal ànd ko ak mboolem jullit yi ànd ko ak mboolem taalibe yi muy guddi gu tedd goo xam ne ngëneel li ci nekk euh, kenn mënu koo lim neewaa na sax ñu mën a toog ci benn jataay wax ko moo tax nag tey ñu ñëw fas yéene ci ànd ak sëriñ maam Fallou Mbacké ibnu sëriñ Modou Faati Xari Mbacke ibnu sëriñ sàmm Mbacke fii ci Daarul Karim sëriñ bi Touba Argentine TV tey ñi ngi lay wax asalaamaaleykum ci guddi gu tedd gi. ñu ngi nuyu mbokki jullit yi ñu seetaan yëpp ak mbokki àdduna yëpp fii ci Touba Daarul Karim di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi doole sant yàlla bu baax bi ñu mayee ñu fekk waat uh, laytu xaddar muy guddi gu gën ci guddi yi. guddi gu gën junni guddi waaw muy guddi goo xam ni ma koy waxee toujours mooy liñ ko mën a joxe exemplaire ci jamono ji mooy guddi promotion liñ ko mën a wax ndax promotion ni ko nit ñi xamee léegi ndax téléphone moom neex naa joxe exemple bu ne laylatul xadr xëy mu alfi sax bi guddi gu gën junni guddi mooy juróom ñett fukk at ak ñett ak lu teg nga ko doon jaamu yàlla ci guddi yoo xamante ne laylatul xadr nekku ci benn bis boo xam ne boo ci jëfee benn jëf ñu nangu la ko noonu la mel muy guddi goo xam ne suñu waaju sëñ Modou Faty Khady moo doon wut ab bis ñu ko mag ñu waxe dem ci sëñ Cheikh Moustapha di ko laaj bis bu gën ci bis yi Cheikh Moustapha radiyallahu anhu ne ko bis bu gën ci bis yi daal bi ñu xam mooy hmm, laytu xaddare waaw mu ko mu jël ko def ko bis ne hmm, digaloon ji njaboot geet ne ñu neen ko jël def ko seen bis fonk ko te bu ñëwee ngeen di ci jaamu yàlla te jaamu yàlla yi ngeen teg ko ci sunna mooy di jàngale alxuraan jàng ci alxuraan ak xasida ak sikirula ak uh, fu bi nekk te man ko foo ci ma ne toggal na ko toggal ma ko indil ma ko ñu boole ko di ko def uh, mbind bi suñu borom yi loolu lañ ci digguloon loolu nag ci la nekk ñu njaboot gi ci njiital sëñ Cheikh Mbacke mu moo du Faty Khary ak njaboot gi ñëpp boobu ba tey ñii di ko def di ko Touba lañ ko doon defal kër ga ci marché Ocass ba 2000 lañ ko toxal fii ci Daaru Karim di ko fi def ci ginnaaw ndigal la sëñ Saaliw sëñ Touba ak sëñ Saaliw Cheikh Massamba radiyallahu anhuma ah, boobu ba tey nag njaboot gi ñu ngi ko fi def ñu ciy sant yàlla bi ñu mayee ndigal loolu nga xam suñu waajur moo ñu ko joxoon ñi di ko def ni nga xamante ne jàpp na noonu moo gën ci nam ñu digaloon ñu di ko def waaw ñu dëkk ñu dëkk def fii ci Touba Darou Karim tax ñu woote woon nit ñëpp ci bis bi ngir ñu fekk suñu ji ñëpp nag ñëw nañ ñu ngi sant yàlla fi ñëw gi ñëw te ñaan yàlla lépp loo xam def nañ ko ci bis bi yàlla suñ borom nangul ñu ko fulool ñu ko waaw ñu ngi sant yàlla mooy ni ñu ci dugg ak jàmm ñu génn ak alhamdulilahi rabbil alamin ba ñëpp delluwaat ci seeni yitte ci jàmm ak salaam ci barkeb sëñ Touba. jërëjëf euh, Serigne Mame Fallou Mbacké ibnu Serigne Modou Fati Xari ci kàddu yu am solo yi nga xam ne yëkkati nga ko macha allah fàttali nu wane ne guddi gi dafay guddi gu tedd ba tax na euh, sa jur bi mu demee woon Cheikh Moussa Fall Karim di ko laaj bis bu gën ci bis yi mu tànnal ko bisub laylatul xadar bi nga xam ne sëñ merci Cheikh Amadou Moustapha da koo jottali waaye sunu borom moo ko tànn euh, da koo jottali ndigalal sunu borom euh, macha allah muy guddi goo xam ne da koy dundal ñu fay la yoolu promotion da ngay am ñaari promotion mooy promotion guddi gi ak promotion weer wi ndax dafay guddi goo xam ne gu gën ci guddi yi la nekk ci weer wu gën ci weer yi macha allah <laughs> ah mu yamoog nag tombeeg guddi gi maanaam yamoog bis bi nga xam ne moo gën ci bis yi muy bisu aljuma waaw nga xam ne da ngay xëy dal ci aljuma kon day ñetti mbir yooyu eh, dañ cee dajee macha allah muy lu am solo sëriñ bi ngi lay sant bu baax te di la ñaanal suñu borom gën a laa kattanal bu baax nu yàgg fee ñëw. Euh, yàgg la fee fekk euh, ñaan suñu borom mu tëyal nu kóllëre gi bu baax macha allah su ko defee kon ñu ngi leen di eh, sant bu baax di leen gërëm lii lañ leen jëlalee woon fi nga xam ne moom moo di ci kër sëriñ Maam Fallou Mbacke ibnu Serigne Modou Fati Xari Mbacke ibnu ma sàmm Mbacke fii ci Daarul Karim eh, ci guddig laylatul xadar seen bokkaaroon a Cissé alaaji góor a sekk wasalaamualeykum wa rahmatullahi